bi ñuy ñëwee nag fàttali nañu nguur gi ministre des finances ne daf ñu joxoon ay chiffres mais dafa amoon ay problème mooy problème sincérité ak fiabilité mu ne ñu réaffirmer nii lu ñuy j'angale jàngalekat maanaam augmentation yi am du am impôt net d'impôt la ñu ne ñu nekkoon ci salle bi yéen ko parce que mbir mu ne day am seede Ou yéen tamit journalistes yi da ngeen koy pour que ëllëg bu wax ni lii def mu am yeneen poñ yoo tamit ay requête ñu ko dans le moyen secondaire di fàttali ñun lu ñuy du pour ñu jox ñu lu amul du pour yoko.

waaye daal xeex bi lépp lu ko sumb mooy corriger iniquité nguur gi nag defal nañu ay proposition ñu taataan yépp te lépp nag comme ñun ay ndaw lañu te ñu ñu jàngalekat yu ne ci classe yi daara yi diggi doom yi suñuy nawle lañu gënuñu leen dañu am kóolute ci ñun am yaakaar ci ñun jiital ñu ne ñu boo leen demee na ngeen ci taxaw déglu defendre ñu défendre l'école, défendre le système bi loolu lañ def Tata, nañ Nous def un compte rendu dara bi réunion bi di pare fekk pare rendu ne Sénégal di kat nekk ci daaray doom bi xam nga lu fi xew te defuñu benn commentaire ñu ngi leen di nak la démarche naturelle syndicale parce que syndicat c'est une action collective qui s'articule autour des principes et des valeurs ay nit buñ la yónnee nga don ndaw bo paré da ngay déllu ci ñu la yónni wax li ak li lañ fa jëlé lolu ben la ñaareel bi nak moy ni ñun signé wu protocole signé wu procès verbal tey ndax amuñu mandat bobu ñu ñu yónni waxu ñu lolu lu ñu yónni mooy ñu ñëw fii wax nguur gi ñun lu ñu bëgg suñuy mbëbët parce que lu ñu bëgg corriger inéquité yi déglu nguur gi lu mu ñu jox ñu taataan lépp bu dara manqué ñu delloo leen ko di ci yokku nag ni xeex bu ñuy xeex nii du rekk mbirim koppar mais nag tey ji payoor bi nu mu demee bu ñu continuer nii ay at yi ñëw boo moytul duñu amati jàngalekat na ñuy jàngale mathématique ak philosophie moo tax ñu ne tey dañu war a fexe ñàkk yamale bu am ci payoor yi ñu fexe yamale ko parce que yamale moo yor réew mooy indi jàmm donc loolu moo doon tey suñu taxawaay fii mais ñun du ñu xëy fii entre quatre murs jël décision te rendre ñu compte ñoo xam ne ñoo nekk ci classe yi ñu yónnee di dellu nag di leen delloo njukkal di de di delu di delu njukal élèves yi di wax ni kat bu nangu febar be loru ci moy mbas mi kat bu nangu dugg ci ndokh mi classe yi xuus ay rivière daw pour dem corriger koku xam nga ni bayina xel njang mi koku bëgg na njang mi jëm kanam lu ñuy wax rek moy wax ngor ca wax ja nguur gi dafa war a fexe lépp loo digalé ko yi mu signé ko mu respecté ko